bu ñu xaymaa monsieur le premier ministre président Macky Sall mu ñu waxoon moom ak Ablaye Diagne ak yow nee ñu mille la région de Kaffrine war la région de Kaffrine a eu cent 34 000 yi bu ñu xayma xayma bu njëkk bi ñu def fekk nañ ci 4 000 doublons 4 000 doublons moo ñu wàññi ba 130 000 mais 130 000 yooyu dépassé na l'objectif qui nous était assigné de 120 000 te parrainage bi day continuer ba le 25 novembre ci département de Kaffrine président Macky quarante mille neuf cent quatre-vingt-dix la ñu waxoon département de Kaffrine am na cinquante mille cinq cent trente-trois pourcentage bi cent vingt-trois virgule vingt-huit pour cent Koungheul président Macky Sall 34 000 la waxoon 013 am na 49 597 soit et Koungheul est premier dans la région 145,81 pour cent département de Malem Hodar le président avait demandé 18 840 ñu ngi ci 13 441 mais le ministre Doudou Ka m'a appelé pour me dire qu'il a 7 000 et quelques qui vont compléter département de Malem et Malem nous sommes à 71,34 pour cent mbir kilaan le président nous avait demandé 22 992. Nous sommes à 21 338, soit 93 Le ministre Aliou Sow aussi m'a signalé qu'il a encore des cartes yu nga xam ne bëgg nañu ko jox d'ici demain matin. bu ñuy xaymaa ci région bi ci région bi yëpp. oser l'avenir de madame Aïssata Tall Sall ah Binta Diallo moom war naa koo gërëm gërëmu spécial parce que c'est la première femme parti allié bu njëkk a déposé dans le département de Kaffrine dans le département de Koungheul et dans le département de Mbirkila Binta Diallo kon gërëm nañ ci niveau régional le président nous avait demandé de mobiliser 116 000 parrains nous avons obtenu 130 900 parrains, soit 115,47 pour cent. liggéey bii nag dafa am lu ko waral parce que dans la région de Kaffrine il y dynamique d'unité une dynamique de cohésion autour du délégué régional c'est pour cette raison que vous avez réussi à faire cet excellent travail. Vous aviez un objectif de 120 Aujourd'hui, nous avons reçu 130 Donc vous avez largement dépassé l'objectif que le candidat et le président de la République avaient assigné à la région de Kaffrine. Donc loolu liggéey bu nga xam ne li ko waral c'est parce que da ngeen ànd doon benn c'est parce que da ngeen ànd juboo travail autour du ministre Abdoulaye Seydou Sow loolu moo tax ñu am résultat boobu et liggéey bii vous avez lancé un défi un défi à tous les responsables la coalition Benno Bokk Yaakaar Cette dynamique de Kaffrine doit être imprimée dans toute l'étendue du territoire national yaakaar naa ne loolu mooy tax le soir du 25 février 2024 ñu mën a fal le candidat Amadou Ba dès le premier tour. Ablaye day nit ku baax ku dëggu ku engagé ku déggal président Macky man président Macky Sall moom booleeg moom. mu téye ma defee ko noo xam ci xamee ni noonu la ko président Macky Sall bëgg yow bu ñu ñëwee Kaffrine wax naa ko fa waaye bu ñëwee Ndakaaru fekk ma fii ànd ak ki mbokkam di sunuy mbokk ma seedeel waa Kaffrine yëpp vous avez un kuy xalaat Kaffrine di liggéeyal Kaffrine di sonnal Kaffrine mission bi ñu dénk mu ñu koy yombal ndax li ma président sant mooy uuf njaboot bi waaye njabootu kafrin gis naa ni Ablaye Seydou Sow uuf na leen téye na leen maa koy sant muy aussi koo xam ni dafa dëggu Ablaye lu nekk ci moom la wax li nekk ci moom la lay won mais dafa jub te liggéey bi ñu def ni feeñ na ci responsable yëpp dañuy faral di yokk ku def cent def naa cent mais moom dafa def saytu ko saisir ko ne def naa cent trente quatre mille mais quatre mille yi ay double emploi génnee naa ko loolu détail la mais détail boobu dafay wone nit ki sa relation avec la vérité Ablaye du nax responsable am du nax kilifaam du nax boppam il travaille pour avoir des résultats et ne soyez pas étonné que mu am ay résultats parce que la muy liggéey daf koy jox àqam la mu ci am mu bokk ko njabootam yëpp ak askanam yëpp